démb ñu gis un Wally Seck bu bu ñëw indi fa ambiance bu bu waar ak orchestre boobu ram daal mm-hmm. ñëw def lu neex man bi nga fa jógee ci laa dem Five mm-hmm. euh, bi ma ñëwee Five tamit aussi euh, Sidi a assure comme ni mu ko promettre promettre woon ay fansam mm-hmm. effectivement am na ambiance booy bi ñëw na fa euh, ma gis benn Sidi Diop boo xamante ne que il a grandi benn Sidi Diop boo xam ne il a mûri am fit parce que moom tamit am na fi mu tëgg bi tam mais quand même showbiz Yves dafa am nu muy tëddee ba mu yàgg ñu dégg Pape Diouf Waly Waly Sidi Diop noonu lay demee ah musique la showbiz la mais ak lu mën am euh, lépp war na mën a euh, jàll ci jàmm ak ci dal euh, des damay xool sax yenn commentaire des fois damay xool dama naan sénégalais kon ba tey ñu lan mooy musique ak lan mooy showbiz du affaire de xeex du affaire de saaga démb dem nañu ba au coup de euh, de cinq heures du matin jékki-jékki am ko fa pompe pomp à gaz muy affaire bu dangereux donc moo am benn faille sécuritaire bu fa am que ni nit ki def ba dugal fa pompe à gaz rek mënoon na def loolu ba dugal fa leneen nga Sidi bi mu gën a dem euh, ñenn ñi dañ jàpp ni waa kër Waly Seck ñoo ko saboté mais bon euh, bu ko waa kër Waly Seck di saboté à quel profit à quel profit mooy yàlla rek moo xama layaluma layaluma kenn mais damay jàngat Sidi am na droit ambitionné fi Waly nekk te su ma bëggee yegg aussi tamit dana liggéey ñi mu àndal xam nañu ban plan de carrière lañ koy taayal moom Sidy Diop su fekkee ni waa camp Waly ñoo ko def ci ñoom ni ko waxee ñoo ñoom kon tooñ nañu wala kon bu boobaay dina nekk lu jaaxal nit mais man ba su ko preuve du contraire je ne pense pas à ça sincèrement waaw lu nekk ci ama ah, ñii neen nañu waa camp Waly ñoo ko def ñii nee nañ ñoom ñoo ko créé pour seen propre buzz Euh, lépp mën na ci am yàlla rek moo xam parce que man personnellement euh, gisuma ki yor pompe en tout cas daal pompe nañu mais ak lu mën a am musique la Sidi su jàppee ne que fi Wally yegg dafa yegg na ko job amul problème Wally su jàppee ne que fi Youssou Ndour yegg fa bëgg a yegg amul problème na ko job aar bi yaatu na l' essentiel mooy que nañu bëggal sénégalais rek mais bëggal leen ci fair play am na ñoo xam ne ñu ngi déglu musique te dégluwuñu Youssou Ndour am ñoom ñu ngi déglu musique te dégluwuñu Waale am ñoom ñu ngi déglu musique te dégluwuñu Sidi Diop ku ci nekk kala saf am ñoo xam njaga njaga mbay la ñuy déglu ba tey am ñoo xam Ablaye Mbuub la ñuy déglu ba tey am ñoo xam Daaru Mbay la ñuy déglu ba tey donc il faut que ñoom tamit ñu am yenn genre esprit yu sain mais li am five démb su fay faral di am na jur leneen te bu juree leen mën na jur ay gàllankoor ci carrière booy